maanaam ci jàkkaarloog seen ma kii bi gëlëgële man ma gën naa saret ci la waaye war maanaam saret bi pour volant jëm ci man man après ma daw ma maam ma wàcc maam dawul sax mais après waa ji daa maam la fii nit ñëw waaw waaw mbaam la ñetti maam yëbut ah, yëbut bërigo de maanaam du seretu ndox de ay bagage la yor waaw seretu waaw seretu mbaam wala ay weñ lay waaw waaw waaw waaw waaw seretu mbaam la après man jéggi naa maanaam boo moom mais gi dafa daw waaw maanaam loolu oh, la waaw wax la moom maanaam nañuy wàccee sereet yi kaw maanaam kaw yoon yi daal na jaar si suuf waaw loolu daal su amoon moom wala boog ñu am ay catégorie yoo xam soo leen tegee lumière nga mën leen a gis loolu mooy yoon mais. ndax bi nga ñëwee ba yam ci li nga fekk ay nit ñu euh, blessé ndax bari na nit ñu ci gaañ. man soog bi après man moom dama tiit maam dama après dama dama xaw a après ma taxaw wax dëgg am ñëw ma après ma yegg fa rek maam rek laa def man dama jéggi wax ak borom saret bi maanaam client yi ma maanaam yi ma yi ma mu sax ñoom nangu ñu wàcc waaw ndax tiit waaw. kon lan ñuy def ndànk di suuraale lépp waaw di ñaaw njort saret dox bëccëg wala ñu am ay ay kii daal yoo xamante ne maam boo leen tegee lumière nga mën leen a gis waaye saret boo xamante doo gis lenn wax faar bant fi noonu ni gars ne ay faar la ñuy kiyee dëggal moom moom tey moom lépp loolu tax nag maam ma taxaw def témoignage bi même bu doon loolu moom du ma si def témoignage maam ñu dama nekk garage bi ma wàccee léegi ñu téléphone ma ne ma am na benn accident bu am ci boori Elton bi Touba wal kon waaw léegi nag accident bi niñ ko gisee métti na mais accident bi li ko waral li ko li ko li ko li ko provoqué mooy ab saret ab saret parce que karu Njaga Njaay bi xam nga fii la jógee Touba la jógee ab rob la yoroon dun ko yóbbu denc nañ ba noppi mu ngi ñibbiwaat Dakar tasanteeg oto bii ñëw minicar bi jóge Diourbel yor ab luyaas boo xam ne bii ci gàmmu la jëm léegi nag euh, bi mu ñëwee borom minicar bi ci boppam moo jublu woon ak saret bi ndax saret bi nii la jëmoon bi mu ñëwee nag fekk saret bi tasanteeg car bi di ñëw waaye war nañoo dimbale daal ci saret yi parce que accident yi ëpp ci dëkk bi li ko waral saret yi la saret yoo xam ne yi dañuy daw te yoruñu ay làmp di daw ci kaw ab tali ci route nationale bi kooku c'est loolu war nañu cee dimbale bu baax a baax woto ñaar yëpp woto transport en la benn bi ab euh, mini car la ñu di ko wax gëlu gëlu ak benn car Ndiaga Ndiaye car Ndiaga bi moo jëm Dakar yoroon ab néew yóbbu woon ab néew bay door a ko waaw am na ci ku ci ñàkk ba kanam blessés yi bëri nañ trop waaye yow ñoom évacué nañ leen pour yóbbu leen hôpital lu mag li ñuy sàkku daal mooy sécurité bi gën a doy parce que daal li nga xam ne moo mënta nekk ay woto mënuñoo ànd ak i ci kaw ab tali su su waaw. si kanamu oto bi kanamu oto bi Dobra, zajdzie. Voilà. xanaa am naa nga lëndoo de. ci biir. ah.